Thank you. naa leen naa leen ko wax ngeen am na nga am taw rek lañ ko may xaas am ñoom ñu ngi fekk nekk nekk si li gën a ci xas yi am xaas la ñu xam ne taw ci tàggooraay rek ko bale ngeen am waxuma taw feex taw feex ku am waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek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 moom bépp bis la ko daan saxal daan ko jàng nee nañu benn bis nag mu jàng ko te di nelaw seytaane dal di ko dikkal na ko yaa imaam uhahaduka anni lan uwaswisu laka abadan walan atika walan amaraka bi maxsiyatin waaye walakin bi sartin ala tad'u laaha bi asadduha nee nañ bi mu ko jàngee ba tëdd nelaw seytaane ci boppam feeñu ko dikkal ko na ko yow imaam man de man la seytaane damaa bëgg a fasante yow kóllëre ne dootuma la jax-jaxal mukk mukk mukk benn beneen bi mooy dootuma dikk ci yow beneen bi mooy ñetteel bi mooy dootuma la santate ak mooy ndax seytaane ñett yii la mën a jaari nit benn bi mu fexe ba jax-jaxal xolam tàbbal ci xol ba ay neen ak sikk benn mu di la dikkal di la cokkaas benn mu sant la ngay def loo xam ne neexul yàlla nee bi mu jàngee ñaa gën ba tëddi nelaw seytaane dafa dikk ci moom ne ko damaa ñëw lenn indul ma lurut fasanteeg yow kóllëre ne sama diggante gi yow ma wàllu jax-jaxal sa xel na dal mooy duma la jax-jaxal beneen bi mooy du ma la beneen bi mooy du sant mooy ku yàlla bind saytaane dana la jax-jaxal beneen bi mooy yàlla dafa bind seytaane muy taxaw nit ki heure bu ne da koy dikkal beneen bi mooy lépp lu jàmbi di def ci mooy yàlla moo xam gu mag la wala bu ndaw wala bu muy yëg bànneex wala bu mu dul yëg bànneex dégg nga bu ko yëgee ak bu ko yëgut saytaani ko digal a nu mu mën a doon rek nit bi mooy yàlla saynaat saytaani moo ko ko sant. nee na mu ne ko nag waaye walakin bi sartin ala tad'ullaha bi asad duha man saytaane yow yow ni ngay def ba nga xam ne du ma a jax jaxal du ma la dikkal du ma la sant mooy lenn rek la danga may nangul na daal booy ñaanati bul ñaanati ñaan gi te itam bul ko xamal kenn mu di ko ñaan maag yow daal képp nañ ko xam maag yow dong nañ ko xam kon nag alhamdulilah rabbil alamin ba ko sëriñ bi gisee ba indil na ko ñi di ko jàng ba ko sëriñ bi gisee ba indil na ko di ko jàng ndax képp ku koy jàng suñ borom dal la musal ci seytaane ak mboolam ak i bokkam xabilaam muy muy xabilaam muy ay bokkam képp ku ko jàng seytaane du la gis du ñëw ci yow du la mën a sant ak mooy suñ borom musal la ci seytaane ci biir ak ci biti kon Muhammad ibnul Waasix moo ko daan ñaanee bépp bis benn bis la ko ñaan seytaane dikkal ko ne ko dama dikk ngir fasante ge yow kulre ne dootuma la jax-jaxal mukk waaye dootumal la dikkal dootuma la sant ak mooy waaye nag ci condition benn sart la mooy nga bañ a ñaanee ñaan gi di ci musloo ci saytaane te itam bul ko xamal kenn te loolu mooy li suñu borom wax yonent bi sallallahu alayhi na ko wa ima yansaqanaka mina saytaani nasqun fasta'is billahi innahu samiun aliim ndax dafa am sart ak jawaab sart bi mooy sunu borom dafa ko yonente na ko wa imaa yen saq naka mina seytaane nasqun maanaam bu la seytaane nar a yàqal wala jax-jaxal wala cojjal kooku fastaxees billahi in wasamin alin mooy mooy jawaabu sart bi mooy muslul ci yàlla kon dañ ciy dégg ne fi nga mën a jaar seytaane ba mucc sa digganteeg seytaane ba mën a mucc ci moom mooy faw ngay jooyal say mbir yàlla di dimbandikoo say mbir yëpp ci yàlla mooy tax dong nga nga mën a mucc seytaane dégg nga te yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na bëru lu mu daan muslu ci seytaane ci ay julleem lu mel ni bu daan julli daan na wax awusu billaahi bi shaytaani rajim daan na wax awusu billaahi sabil alim min seytaani rajim min amasihi wa nafasihi wa nafaqihi loolu yëpp daan na ci muslu suñu borom tabaaraka taala ci jax-jaxe seytaane lu mel ni euh, daanu rabak lu mel ni rëy rëyloog mel ni wëy woo xam ne dañ koo ŋaññi nga xam ne dëppuwut ak diina yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ko muslu ci waxtu kon ñaan gi Muhammad ibnul Waasim moo ko daan jàng moo tax ñu tuddee ko nag ñaan gi mooy duhaa u yaqaafoo saytaanu ñaan la goo xamee day tiital seytaane boo ko jàngee saytaane ci boppam mooy tiital boppam. ndax Muhammad ibnul Waasim mii nga xam ne daan na ko jàng ba ko jàngee seytaane dafa tiit ci jàngim ko jàng saytaane ñëw toog ak moom ne ko ah, damaa fasante yow kóllëre kat ne dootuma la dikkal. beneen bi mooy dootuma la sant mooy yàlla beneen bi mooy dootuma la dikkal beneen bi mooy duma la jax-jaxal ñett yi duma la ci def benn waaye nag sarta nga mucc ci jax sarta nga mucc ci man du ma la sarta nga mucc ci du ma la sant ak mooy yàlla mooy nga bàyyi ñaan gi tëralal ñaan gi bul ko ñaaniti mukk kon nag ñaan gi kenn ku nekk war na ko fonk moo tax sunu borom wax ci suratul laxraaf ne yaa bani aadama laa yaftininakum saytaanu kama axraja abawaykum minal jannati yansihu anhuma libaasahuma liyuriyahuma sawaatihima ndax innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna sayatina awliya lillazina la yu'minun suñu borom foofu doomi aadama yëpp la wax ak dana yéen doomu aadama yi ñu ne ñu ne ko digg nañ la yow yàlla mu ne bu leen saytaan wor mukk ci di leen rafetal ak mooy yàlla. kon képp kuy mooy yàlla saytaan moo la koy rafetal naan la lii baax na nekk ca te loolu doo ci jëlee lu ak waru moo tax suñu borom ne yéen doomu aadama yi bu leen saytaane wor ci rafetal leen ay mooy yàlla ci ngeen bàyyi koddaayu ragal yàlla ci ngeen bàyyi lépp lu ma leen sant ci ngeen bàyyi lépp loo xamee ne dama leen ko digal topp leen ko bu leen seytaane indil lu ñàkk fu la ngiri aduna di leen ko rafetal naa leen lii a baax ngeen di ko def ndax kat maa ngi leen di xamal ne kim njëkk a war mooy seen baay ak seen yaay muy Adama ak xawa moo leen moo leen rafetal maanaam garab ga ma leen tere woon ñi lekk garab ga ñi lekk garab ga ba mujj suñu borom subhaanahu wa taala génn leen ñu bàyyi ko ci aljana ba noppi yàlla feeñal seen sikk seen xawra dégg nga dégg kon moom njabootam yéen nit ñi moom seytaane moom njabootam dañ leen di gis foo xamee ne yéen du ngeen leen gis fu ne tey seytaane mi ngi lay gis te yow mënoo ko gis njabootam ñu ngi lay gis te yow mënoo leen di gis dégg nga nga am noonu boo xam ne nag yow yow mënoo koo gis te moom mi ngi lay gis njabootam mi ngi lay gis kon kooku war nga di muslu ci yàlla waxtu mu musul la ci moom. kon saytaane moom njabootam yaraw na kum wuyu saaxidoonukum yàlla ne ne ñu ngi leen di gis di jàkkaarloog yéen te wa antum laa tarawnahum wala tusaaxidoonuhum yéen du ngeen leen gis te du ngeen jàkkaarloog ñoom. léegi nag ki am noon bu mel noon li ci jaadu rek mooy fal yal fal fa sama yal samakum alxasru minu maanaam di ko wëttandiku wa min suriyati moom njabootam boo amee noon boo xamee ne mi ngi lay gis benn di jàkkaarloog yow te yow mënoo koo gis mënoo jàkkaarloog moom. kon fexel mel ni ko amee aw yet rek di wëttandiku kon xeeti ñaan yi ay yet la yoo xam ne boo koy ñaan yaa ngi mën suñu borom mu musal la ci. ndax suñu borom dafa xam ne inaa jaxal naa sayaatina awliya li la si laa yum noona yàlla def nañ sayaatiin yi ñii ñii sëriñ ak ñi nga xam ne gëmuñ yàlla nga xam ne képp ku gëmul yàlla rek saytaane mooy sa sëriñ même sax ku gëm yàlla ta amoo ab sëriñ boo wéedu kooku sëriñ Tuubaa da koo tuddee ne saytaane mooy sa sëriñ kooku fa say xoxoo saytaanu xay su ki nga xam ne dafa rek nangu benn sëriñ topp bakkanam adduna rek kooku saytaane mooy sëriñam moo tax kon ñi bëgg sëriñ lu ñuy wax wasila ñi dëkkuwut kon képp ku amul wasila wala képp ku gëmul yàlla saytaane mooy wëlliyoom te inna awliya saytaani kaana fan wali seytaan yi seen pexe yàlla nee na lu feebur la lu doxoodi la ñi gëm yàlla nag mooy ñiy jëf-jëf ju baax ñooñu seytaane amul ci ñoom benn kattan wa amal mu'minuuna allaziina ya'maluuna saalihaati kon falaa sabiila lahum alayhim kon yàlla wax jooju mu wax ne innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min haysu laa tarawnahum maanaam seytaane mi ngi leen di gis di jàkkaarloog yéen moo moo njabootam te yéen du ngeen gis ba noppi du ngeen jàkkaarloog ñoom loolu kon dafay dafay boo firee ñaan gi rek da ngay xam ne rek lay junj boo firee ñaan gi nga xam ne moom la Muhammad ibnul Waasiya daan jàng ba saytaane fi ñu ko wax loolu da ngay xam ne moom rek lay firi. kon ñaan gaa ngi nii képp ku ko wax da nga mucc saytaane mucc ci mboolem li nga xamee ne moo di njabootam. moo di allahuma yow sunu borom innaka naka yow de salatta xërtal nga xale naa sunu kaw a saytaane saytaane. adwan mu doon at noon bu biir min ah daa inaa tukkee ci sunu noon yi bokk ci sunu noon yi. basiran nga may ko nag muy aji gis bi on yow bi naa mutali an mbir moom muy aji yër ba tey ala xawraatina sunu awre yi dégg nga yaraanaa danuñu gis moom saytaane huwa moom wa qabiiloo ak giiram gi mooy mbokkam yi muy njabootam min haysu laa naraahum ci foo xamee ni ñun duñ ko gis kon nag allahuma yow sunu borom aayisu yàlla na nga ko naaguloo minaa ci ñun ba bu mu am ci ñun benn kàttan kama aayastoo comme ni nga ko naagulee moom saytaan mi rahmatika sa yërmande ndax fu mu jëm rek mbugulum yàlla la fay dajeeg waxanitu yàlla na nga ba bu am ci ñun benn kàttan ndax inna ibaadi laysa laka alayhim sultaanu moo ko waral. kamaa xanantoo kamaa xanattoo comme ni nga ko naaguloo yow yàlla mi naa fi ci sag baal ndax yàlla du ko baal mukk ëllëg safara mooy dëkkuwaayam. wa baaxit yàlla na nga ko sëril na naa sunu diggante wa bay noo ak digganteem. kamaa baaxattoo comme ni nga sëralee bay noo digganteem wa bay na janatik ak diggante sa aljana seytaane ak aljana seen diggante kenn mënu koo dox ba yegg ci morom ka yàlla na ci yàlla musal ci moom wa maxfirata ak sa njëgal moom it yàlla du ko jégal innaka naka yow qadirun aji am kàttan nga ala kulli seen ci lépp lëf mooy ay jima ma firi léegi rek innoo yaraakum huwa wa qabiloo moom la moom la ñaan gi làmboo dafa njëkk wax ne yow suñu borom ya xiirtal suñ kaw saytaane kon loolu moom ñëpp d'accord nañ ci ne saytaane bu neexoon yàlla mu yeew ko bu neexoon yàlla du sàkk saytaane bu neexoon yàlla ñëpp jub bu neexoon yàlla ñëpp dëng waaye yàlla neex mu nekk yàlla doon yàlla ba noppi tàggat saytaane ku am kattan koo xam ne moo gën a am kattan ñëpp dàq yàq ñëpp yàlla may ko lu ne nag kattan lu ne mën koo jëfandikoo kattan lu ne la ko yàlla may moo tax mu ne ko yaa xirtal suñu kaw saytaane kon seytaane saa bu ne rek mi ngi ci jàmm bi day dikkal jàmm bi da koy sant mooy da koy jax-jaxal ñetti poson yëpp da koy defal. moo tax boo jàngee ñaan gi du la jax-jaxal du la sant ak mooy yàlla du la dikkal moo tax mu ne ko yow suñu borom yaa xirtal suñu kaw seytaane loolu moo am na bu nëpp te moom noon la bu bir ndax inna saytaane lakum aduwwun fattaquuhu waxaduun innamaa yad'uu hizbahu liyakuunuu min ashaabi sa'iir la alquran wax kon dafa bokk suñu noon yi dëgg la dëgg dëgg noon saytaane la waaye am na adduna am na bakkan am na bànneex waaye ñoom ñëpp saytaane la ñuy jàppale rek ñoom ñëpp saytaane la ñuy jàppale ñoom ñëpp saytaane la jàppale rek waaye saytaane mooy seen seef kon ci sunu noon yi la bokk waaye yàlla may ko muy gis sunu ayib mboolem ayibu doomu bi yàlla may na saytaane mu di ko gis mboolem xawraay doomu aadama bi yàlla may na saytaane mu di ko gis waaye itam yàlla may na ko mën a yër li nekk ci nikki ba xam ko. ndax nit ki dafa jubam dafa ragal yàllam nit ki dafa yéesam dafa bonam dafa dafa bëgg adunaam dafa topp bakkanam dafa topp bànneexam loolu yëpp seytaane da koy mën a xam ci nit ki. lu mooy yàlla nee ni mu ñuy gis ñun moom njabootam te ñun nag mënuñ koo gis mënuñoo jàkkaarloog moom xam nga bu ñu doon gis rek ñu ne waaw waaye yàlla nee na dañuy gis ba noppi di jàkkaarloog ñun comme yow ni nga jàkkaarloog sa télé bi ñun nag mënuñ koo gis mënuñoo jàkkaarloog moom kon nag ku am noonu bu mel noonu boo mëntu gis doo jàkkaarloog moom moom mi ngi lay gis di jàkkaarloog yow kon wëttandiku rek akay wëttandiku rek mooy tax nga mucc ci kon nag moom mu ngi yër sunu awra di ko xam di ñu gis moom njabootam te ñun duñ ko mën a gis kon nag yow sunu borom yàlla na nga ko naaguloo ci ñun ba bu mu am ci ñun benn kattan comme ni nga ko naaguloo ci sa yërmande yërmande yàlla moom seytaan naagu na ci yërmande yàlla ki ci naagul moo di ab julit kooku moom naagul ci yër yërmande yàlla wala ki nam ma tuub bàyyi ko ci kéeféer ñëw ci ak julit kooku du naagu ci yërmande yàlla ndégg ndax waman yaxnatu min rahmati rabbi ila daaloona te ila daaloona mooy mbokk seytaan yi te seytaan yi moo leen jiiti suñu borom na ne kenn du naagu ci yërmande yàlla lu dul yëreet ñi te mooy njéggalu yàlla waaye yàlla na ko naaguloo ci ñun comme ni nga ko naaguloo ba tey ci sa baal xam nga ku ne yàlla mën na la baal ba mu des saytaane ak ki topp saytaane fu ne jullit lu mu bon bon yàlla mën na ko baal jullit lu mu bon bon bu tuubee dellu ci yàlla yàlla mën na ko yërëm ba mu des saytaane ak ki topp waaye yàlla na ko sëril suñu diggante ak digganteem comme ni nga sëralee moom seytaane digganteem mom seytaane ak diggante aljana ak ak li nga xam ne moo di sa njëgal ku ne yàlla mën na ko jégal ku ne yàlla mën na ko tabar aljana ba mu des seytaane ak ku topp seytaane ki topp seytaane ak seytaane moom yàlla du leen jégal mukk yàlla du leen njoof di dugal ci njégalam ak yërmandeem waaye nag jullit lu mu bon bon kooku yàlla mën na ko tabal aljana julit lu mu bon bon bu jégaloo yàlla yàlla mën na ko jégal mu na ko yow nag yow yàlla aji am kàttan nga ci lépp lëf kon allah borom aayisu moom saytaane yàlla na nga ko naaguloo minaa ci ñun kama aayastuhu comme ni nga ko naagulee mi rahmat ka sa yërmande nga xam ne du dajeeg mukk yërmande yàlla waxanithu yàlla na nga ko naaguloo minaa ci ñun ba bu mu am ci ñun benn kattan kama xanattuhu comme ni nga ko naaguloo minaa fi ko ci sag baaxal doo ko baaxal mukk safar rek mooy dëkkuwaayam wa baaxal yàlla na nga sëril bay naa sunu diggante wa baynoo ak diggante saytaane ba am ci ñun benn kattan kama baaxatoo comme ni nga sërilee baynoo diggante moom saytaane bay na jannatika ak diggante sa aljana ji wa maxfiratika ak sa njëggal innaka naka yow qadirun ajaam kattan yow yàlla ala kulli seen ci lépp lëf lu mën di doon. kon ñaan gi saa boo ko waxee suñu borom musal la ci saytaane ak li nga xamee ne mooy mu lay dikkal wala mu lay sant ak may wala mu lay jax-jaxal ci saayir ak ci baatin yàlla dana ci musal. mu teg ci ñaan gi nga ba tey nga xam ne ba tey ci loolu la jëm wàllu muslu waaye nag xaw nay gudd ndax mi ngi tàmbalee allahumma laa taj al sadri li saytaani maraqan wala taj al qalbi lahu majaalan wala taj al nii mi man istafasahu bi sawtihi wa ajlaba alayhi bi qaylihi wa rijlihi wa kun lii min habaa'ilihi munnajiyan wa min masaa'idihi munnaqayan wa min qawaa'ilihi mubahidan allahumma innahu waswasa fil qalbi ma la yutiqu lisaanu sikrahu wala tastatiihu nafsu nasrahu mimma nasahaka anhu xollu hisatika wa sumu majdika fa asil ya sayyidi ma sutra wamhu ma suwira biwaabilin min sahaibi hasamatika wa toofaaniin min bihaari nusratika waslul alayhi sayfa ibhaadika warsuqu bi sihaami ixsaaika waqriqhu binaari intiqaamika wajal xalaasi minhu saailan fii husnihi wa muwakiran li asafi foofu la ñaan gi am kon xaw naa gudd ñaan gi nag ki ko daan jàng dafa bokk ci ñaan wa di aarifu billaahi muhammad ibnu masarata al qurtubi moo daan jàng ñaan gi waaye nettali na ci lu am solo nit ki war ko bàyyi ci digganteem ak boromam ak digganteem ak pexeb seytaane ci ni mu war di tuddee yàlla moo xam kiy jàng alquran wala di jàng ay ñaan wala ki jàng ay xasaayit wax na ci loo xam ne ku ko digg war nga cee bàyyi xel. ana lan la wax mu ne kon nag léeg-léeg nga gis jàmm boo xam ne day def xalwa di wéet di soxloo di jàng alquran wala muy da te fekk digganteem ak boromam am na jax-jaxal yu ci nekk. mooy waral nag cafkaak tudd yàlla ak neexit gi nga xamee nit ki da koy yëg ci biir tudd yàlla du tabbi ci xolomam du tabbi mukk ci xolom xolam day mujj waw te kooki kat mi ngi tëj ci nekk di dugg xalwa di jàng alquran di wàcc kaamil yu bari wala mu yor aw tur yàlla waaye nee léeg-léeg jax-jaxal dana dox digganteem ak boromam moo tax lu ñuy tuddee cafka maanaam li góor yàlla yi xaarif yi ne billahi di yëg ci seen xol mooy jàng alquran ba dem ba alquran moo leen di gënal ceeb lu muy neex neeg yàpp lu muy neex neex ak lépp lu aju ci xëyti cafkay aduna ak lépp lu rafet nga xam ne dootu rafetati ci ñoom ngir lan bànneex bi ñuy yëg ci jaamu gi jaamu seen borom. nee na nag léeg-léeg nga gis koo xam ne day def xalwa wala foo ko fekk mi ngi yor xasaayit ga foo ko fekk ma nga ci kurus ga di jàng rek di dugg xalwa soxlaam yëpp mooy loolu way nee na fekk nag diggante ak borom am na jax-jax lu ci nekk mooy waral nag du yëg bànneexu jaamu yàlla gi bànneexu jaamu yàlla gi maanaam du ko am du ci am dara benn caf ko du nekk ci moom loolu yëpp nee na day nag xolam wow maanaam barrage bi dox diggante ak borom ay jax-jaxal lay doon te day waral xoolam def lu ñuy wax wow korom te fekk nag foo ko fekk mi ngi lu kenn mënu ko ci farlu jàng alquran jàng xasaat kenn mënu ko ci waaye xolam dafa wow <laughs> moo tax nag du yëg cafkaak tudd yàlla ñe waaye nag nee na loolu lu koy waral nee na ñaari tudd xam tudd yàlla ñaar la dafa am lu ñuy lu ñuy tuddee sikru xawfin wa raxbatin am lu ñuy wax sikru amnin wa xaflatin ci la ko leeral benn bi baax na benn bi nag képp ku ci nekkoon na ko bàyyi képp koo xam ne nag nekk woon ci benn bi na nga góorgóorlu fexe ba suñ borom may la benn bi muy sikru xawfin wa raxbatin ñuy wax raxba buñ ne sikru xawfin wa raxbatin mooy nit ki buy tudd yàlla dafay tiit tiit gu tukkee ci yàlla tiit gu jëm ci yàlla nit ki suy jàng xasaar wala alquran mu tiit te tiit gi tukkee ci yàlla jëmaat ci yàlla kooku seytaane day day nëbbutu mooy du am ci moom soxla naka noonu day fekk itam xolam lu ñuy wax sidduqu niyati maanaam mu dëggal ak yéenam ci jàng gi may jàng alquran wala wirdi gi may wirdi tur yàlla kooku seytaane du am benn kattan di tàbbi ci xolam te naka noonu pexe seytaane su fekkoo ne dafa am guum gu dox si digganteem ak seytaane yàlla day dog buum ga ak jax-jaxal yépp suñu borom da koy dindi sànni fële kon kooku mooy sikru bil xawfi wa raxba mooy koo xamee ne xoolam yëpp dara du ci nekk lam koy laltaayee mooy yéene gu dëggu su ko defee seytaane du am kattan di dugg ci biir xolam naka noonu pexem seytaane yàlla dana dog buum bu dox ci digganteem ak pexem seytaane naka noonu xeeti jax-jaxal yëpp yàlla dana ko dindi ci moom. mu des bi nga xam mooy bu ñaareel bi mooy sikru bil am ni wal xaflati kooku ku koy def ku ne doo tàqali ko mukk jax-jaxal seytaane te jàmm bu koy def nag mën naa saxoo di jàng alquran di jàng xasida te fekk xolam mi ngi muuru. mooy waral nag du am cafkaak tudd yàlla mooy du ci yëg neexit ga mooy jàmm boo xamee ne buy tudd yàlla wala muy jàng xasaar wala alquran am na koo lite de waaye dafay sàggan masalan mi ngi jàng al alquran mi ngi wirda waaye mi ngi xoolaan vidéo mi ngi ci youtube bi xelam ma ngay ma ngay di xalaat lu ne mu di ko xalaat ndax sikurul xaw fi moom dootal xalaat dootal seetaan vidéo dootal leneen waaye sikuru bil am ni wal xaflati mooy am nga kóolute ci tudd yàlla gi wala jàng alquran wala xasaar waaye yaa ngi sa xale ngi xalaat nangam sa xale ngi seetaan vidéo boole vidéo di seetaan vidéo ak bëri képp ku koy def doo taaxalikoo jax-jaxa saytaane wa inistadaamal xabdu sikur wal qiraate donte sax jàmm koy def dafa saxal di tudd yàlla wala muy jàng alquran ndax li anna ala qalbil qaafili xisaa xisaawatun wala yajudu saahibuha li tax mi sikri xalaawatan maanaam xolob ki saggan kooku day muuru moo tax nag borom borom ci boppam du yëg cafkaak tudd yàlla neexil wa ak lu muy mën a jàng du ci yëg neexil baa muuru kon nag yàlla na nu yàlla may tudd goo xam ne alxawfu la ak raxba mooy tudd yàlla goo xam ne nit ki du jël téléphone di xoolaan du déglu vocal du def yenn yooyu yëpp waaye daal dafay tiit ci digganteem ak boromam googu tudd moom ci ca sens la yàlla di dindi gépp buum goo xam ne dafa dox digganteem ak saytaane gépp pexe mu dox digganteem ak seytaane waaye daxal ko mboolem xeeti jax-jaxal su ko defee xool bi suñ borom wuññil ko lépp luy xeeti lëndëm muy jàkka muy jàkkaarloo mbiri suñu borom tabaaraka wa taala waaye tudd gi nga xam ne moom la ñu moom la ñuy wax sikurun bil amni wal xaflati maanaam yaa ngi tudd yàlla ci kóolite xam nga ne daal yaa ngi yudde tur yàlla yaa ngi jàng alquran loolu daal xam nga ko waaye nag yaa ngi ciy boole ak càggante kooku jax-jaxal du dañ mukk sa xol te day mujj muuru mooy tax na muuru gu ca xol muuru doo yëg cafkaak neexi ci jaamu yàlla ga waaye nag boo defee sikurul xawfi wa raxbati kooku sa xol du muuru day dindee ko ci saasa su ko defee nag mën a yëg xalaawatul xibaada muy neexati jaamu yàlla kon nag yàlla na ko yàlla defal te defal leen ko. léegi nag ñaan gi da ko daan ñaan lu bari moom wëllu yàlla wëpp ma leen wax fonkoon na ko lool te mooy Muhammad ibnu Masrata al Qurbi ci la nettaliwaale ñaari tudd yàlla yi am yooyu nga xam ne kenn ku nekk war na ko bàyyi xel waxu ne nag ñaar yëpp benn bee baaxut benn bee baax waaye bi gën mooy sikru bil xaf wa raxbati kon nag bàyyi nag sànni fële sikru bil am ni wal xaflati yàlla nañu ci yàlla musal te musal leen ci ci sayr ak ci booy xool ñaan gi ba tey ayab alquran lay junji fi yàlla di waxee ci suratu al isra'i diggante saytaane ak nit ñi ñi leen di saytaane jekkoo man leen bëreeral leen bokk na ca wax ya wastafsis man istataxta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi qaylika wa rijlika wa saarikum fil amwali wal awlaadi wa itum wa ma yaxiduhuma saytaanu ila quroran la ca njëkk yàlla na ko isab fa man tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaakum jazaan mafuran maanaam fi seytaane mën a jaar ba réeral doomu aadama yi li ëpp ci ñoom nga xam ne da leen di réeral te nag ni leen di réerale bëri na ñii mu leen ci làmb ñii ca naan sàngara ñii ca njaaloma ñii di wut alal ca anam boo xam ne daganut ñii di njaalo gis nga ñaan gi boo koy muslu ci suñu borom tabaaraka ko taala yàlla da lay musal ci xeet yooyu yëpp ndax seytaane dafa am lu mu waxoon waxoon ak yàlla. mooy bi ko yàlla digalee moom iblis na ko sujootal sunu maam Adama mu lànk ndax moom jàpp na ne comme ci leer lañ ko bindi Adama ci ban kon kay yàlla dafa waroon a wax ne Adama mii ban te bay ko ci suuf ca cosaanam lëndëm la na ñëw ma sujootal ma man iblis mi nga xam ne sama cosaan leer la dégg nga yàlla yàlla nag ci la ko tëkku tëkku bu rëy dégg ci la ko tëkku tëkku bu rëy léegi nag iblis na ko damaa bëgg nga may ma ba keroog ngay rey ñëpp wal buftu ba ñëpp faatu dégg nga nga mame may am kattan du ma muk mukk ba keroog bis penc di taxaw yàlla na ko may naa la ko mu ne nag danaa faagaagal li nga xam ne moo di njabootu aadama yëpp ba mu des lu néew yàlla na ko loolu itam may naa la ko dégg nga ci la ko waxoon na ko nag ishab demal ci kaw suuf yow ak doomu aadama yi fa man tabi'aka minhum képp ku la topp ci ñoom doomu aadama yi fa inna jahannama jisaakum jisaan ma foran bu yóbbal xamee bu ñëwee ci man danaa leen fay ñoom ñëpp safaraw jahannama fay goo xam ne gu mat sëkk la ci wàññi dara. léegi nag na mu yàqee doomu aadama bi ci moom la yàlla di nett naan wastafti man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib halim bi xaylika wa rijlika wa saarikum fil amwaali wal awlaadi wa xeetum wa maa yaxiduhum saytaan ila qururan buñ ko fiiree rek ngeen xam ne yàqu-yàqu yi rek moo am ci àdduna yàqu-yàqu yi nekk yëpp yëpp tey waxoon nañ ci surtout Ibrahima kat ne Iblis bu yowmal xiyaamee day génn na naxoo mbaay yàlla dafa santoon ngeen bàyyi santaane yàlla ma santaane ngeen ñëw topp ma na ngeen xam ne bis ni ki tey yéen yëpp du ma leen xettali man leen maa xettali bu leen ma yedd tey déedéet bu leen ma yedd falaatu loo ma ni waloo ma anfusukum yedd leen seen bopp yéen a tooñ seen bopp maa ana bi musriqukum wa maa antum bi musriqiya tey jii mënu ma xettali sama bopp mënu ma leen di xettali yéen man leen man leen maa xettali na ngeen xam ne daal man ak yéen yëpp yàlla safara lañu jëmee parce que bañ nekkee ci na yàlla da leen santoon ngeen jaamu ko ngeen bañ moo woo leen ci caaxaan ngeen ñëw topp ma moo tax yàlla leer na lépp ci alquran ku réer yow la neex ak bakkan ak bëgg na defe ne da nga fi yàgg rek waaye yàlla leeral lépp ci alquran moo tax mu ne allahuma yow sunu borom laa tajal yàlla bul def sadri sama dënn bi maraaxan muy tëf tëfi li saytaani ngir saytaani al maraax mooy xol bi wëlbatiku di jàllar bi ku rek di tiit kooku mooy maraax mu ne nag yàlla bul def sama dënn mukk muy tëf tëfi ngir saytaani am na ñoo xamee ne fu ne boo leen tiimoon ni amee ci way ragal yàlla ñi ku demee si naaw bëkkri noonu la meloon boo boo ko jegewaat nii da nga dënn bi mel ni kaw diir bu fi nekk di riib ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax waaye loolu taqwa moo koy may nit ki. waaye am na ci nit ñoo xam ne tey boo leen ci moon seen dënn danaan tëf tëf boo jëloon sa loxo sax teg ko ci seen dënn yi da ngay dégg mu naan tëf tëf tëf di wëlbatiku. ñiy faral di tiit di daanu rab loolu la ñu di ko def fekk saytaane moo nekk ci seen xol di daw ci seeni deret seen lépp saytaane la ndax saytaaneem saytaane lu tax muy def ci xolum nit ki xam nga yàlla ak saytaane niroowuñ dara. yàlla xool bu mu nekk boroom xool ba day ñeme ngir taqwaa gi ci nekk waaye seytaane xool bu mu nekk boroom day day ragal ba ci ay cëram sax day faral di lox day ragal day ragal kon gis nga seytaane moom léppam dafa ragal ndax lu ko waral booy jaamu yàlla fu ne booy bari looy tudd yàlla rek mu génn kon loolu moo tax nikki bu xolam dënnam bu ci seytaane nekk rek day faral di jeexi jaaxa ay neen rek lay xalaat lu bon rek moo ciy nekk. kon nag allahumma yow suñu sama dënn maraaxan muy wëlbatiku di tëf tëfi li saytaane ngir saytaane wala tacaal yàlla bul def xal bi sama xol ma jàllal muy wëndeelu loxo ngir saytaane fu mu nekk rek di jàllal bi ko ngir saytaane xam nga ni xol di jàllal bi ko ci wàllu saytaane noonu lay jàllal ko ci wàllu yàlla waaye bu dee ci wàllu yàlla mooy xol bu dal xol boo xam ne yàlla rek lay xalaat ay kéemaani yàlla waaye xol bu saytaane nekk xol boobu moom lépp lu muy xalaat rek mooy lu seytaane bëgg te mooy la waxantoon ak yàlla rek na ko ba yàlla na fa man tabi'aka minhum fa inna jahannama jasaa'ukum jasaa'an mafuuran kon bépp xol bu seytaane nekk loo rek lay xol bi di bëgg misik meeg lambu jeeg fo meeg xeeti gitaar yeeg lépp rek ci la ñuy nekk football meeg fo meeg yépp ci la ñuy nekk tabarkalla kon nag wala tajal yàlla bul def xal bi sama xol ma jàll muy wëndeelu loo ngir seytaane wala te ni yàlla bul ma def mukk mi man ma bokk ca ña nga xam ne istafasoo dana leen woyefal moom seytaane bi saw sawti ci kàddoom al sawtu borom xam-xam yëpp d'accord nañ ci ñi ne mooy allahu boo demee ci mujahid benn bu ci nekk dañ koo saraaxa ci maxnaa yu bari kenn ku ci nekk ak xataadata kenn ku ci nekk na nga ko firee dañ ne asawtu mooy alxanaaw ak laxu ak laxat maanaam daal mooy wëy mooy wëy mu am Sénégal nii rek nga xam ne góor ak jigéen ñoo fay daje jaxasoo ko fecceeg yëpp musiba mu ne dafi juddoo njaalo meeg am na ñoo xam ne foofu la ñuy xamante ba jaaree fa doom sosoo fa ñu njaaloo fa kooku lañ tuddee sawtu dafa bokkoon ci kaddu yu saytaane waxoon toon nag yàlla na ko boo ma ci suuf sa jaam ñi dalaa leen def nii am na ñoo xam ne ci kaddu laa leen di jaarale. jigéen ñi nga xam ne dañuy yëkkati seen kaddu ca kaw te lislaam bañ ko yëpp lislaam fiir na ba buy julli te julli moo gën a foor defe naa ne danaan jigéen wàccal sa kaddu bu ko kenn dégg sa borom kër sax bu mu ko dégg. léegi nag jigéen ñi lu ne la ñuy def ñii a ca njàng ma ñii a ngi ca mising ma ñii a ngi ca ñii nangam kenn xamul rek te jigéen lépp mu la rawatina baatam waaye fu ne seen xawr yëpp dañ koy génne di kon nag mooy bi sawti seytaane fexe na ba nit ñi ci ëpp seen baat ci wàllu adduna lañ ko jëmale duñ ko jëmale mukk ci wàllu yàlla ci jàng ak jàngale ci waar nit ñi di leen delloo ci yàlla moo tax man yàlla bul ma def ma bokk ci ñi nga xam ne istafasaw dana leen fal moom saytaane bi sawti ci kàddoom wa aj la ba te dana bijji xaliin ci ñoom bi xëy lii ci fasam warij lii ak tànkam loolu mooy lan am na ci ñoo xamee ne ci jaamu yàlla yi ba tey fuñ dégg ndaga danañ fa dem seen jagartaay bi xay wala ñi war seen oto yi pësiro yi bu doon jamono ji am ñoo xam ne ba ci moo yàlla sax ñu ngi war ay fas pourtant de wakkun yàlla na nga nekkal lii ñal mun na mun na jiyan di aji musulma min haba ilihi ca li nga xam ne mooy fiiram fiir mooy buum mooy buumuk saytaana mooy pexe mi ñuy pexel ba ba takk buum nga ba mu dëgër ba xam ne jàmbi du ca mën a génn kon wakkun yàlla na nga doole nekkal yàlla lii ñal ma mun na jiyan di ma aji musal min haba ilihi ci li nga xamee ne mooy fiiram mooy fiiram nappkat yi xam nañ ko moolkat yi mooy mbaal yooyu ñuy sànni ngir am jën seytaan yi itam noonu rek la ko yàlla bindee dafa mel ni mool la boo xamee ne day sànni mbaalam rek su ko defee doomu aadama yi nga xam ne caaxaan adduna rek leen ñor ñu ñëw dugg ci mbaal gi waaye wa mu naqa wa mu naqayan maa ngi la ñaan nga seetal ma min masa idi ci rëbbam ba tey ni mool yi di def rek rëbbu jën seytaane ba tey li ko fi tax a in ñëw ci kaw suuf mooy di rëbbu nit yi di leen fiit di leen jàpp maa ngi la ba tey mu bax yi daan mbir moom ngay aji min xawaa ili li nga xam ne moo di ak sànkoom allahuma yow suñu borom innahu na ko moom saytaane waswasa aji jax-jaxal la fil qalbi ci biir xol bi maa loo xamee ne laa yutiixu du ko attan mukk alisaanu làmmiñ wi sikruhu ak tuddam wala tastatiixo te du man mukk nafsu bakkan ba nasruhu ak wisaareem nasruhu li nga xamee ne moo di ak siwalam bi maa ci loo xamee ne nasaaka dana sellal xan hu walis xollu xesatika kaweeg li nga xamee ne moo di sak tedd wasumu majjika ak kaweeg li nga xam ne ba tey moo di sag tedd nga fa asil yàlla na nga dañal yaa saydi yaa suma sang maa sutura lépp lu nëbbu ci man wam hu yàlla na nga far maa suwira lépp loo xam ne la ci man li nga koy faree nag bi waabilin moo di ab waame min saxaa ibi xasamatika wutukee ci niirug sag màggaay wa toofaani ak labaluk min bihaari nusratika gutikee ko ci géejug sun ndimbal waslul yàlla na nga boci aalihi ci moom sayfa ibhaadika waslul yàlla nga bocc lii ci kawam sayfa ifhaadika jaasik sëg sëril war suxu yàlla na ko sànni bi sihaami ixsaika fet sëg sëril xu yàlla na nga ko xotti bi naari intiqaamika safaraw sëg mbugal laa foog war mu ne yow sunu borom dafa njëkk wax ne ci allahuma laa taj al sadri li saytaane maraqan maanaam bul def sama dënn muy wëlbatu gi di fërfëri ngir saytaane daal ne wala taj an qalbi ma jaalan bul def sama xol fu mu toll rek di wëndelu ngir saytaane waaye wala taj al nii mi mani istafasoo bi saw ti bul ma def mukk ma bokk ci ñi nga xam ne saytaane daf leen woyefal ci seeni kaddo jigéen ñeeg woykat yeeg musiciens yeeg ñëpp daal di dugg bépp micc moo xam ne bépp micc wax moo xam ne lislaam gërëmul ko rek bi sawti saytaane mi ngi ci mi ngi ci jël mbaalam di ci sànni nit comme ni moolkat bi di jëlee mbaalam di ko sànni ci géej gi di napp jët seytaane noonu la koy defee di réeral nit ñi waaye wa ajlaba alayhim bi xayli wa rajlihi moo xam bal ba xeeti guitare yëpp dugg bépp musique boo xam ne dëppuwut ak musique gu lislaam rek dégg nga musique moo xam ne dañ fay dajee di foo ko fecci njaalo di fa judd lépp lu ban di fa judd kooku seytaane dafa mel ni ku yor mbaalam rek di ko sànni foofu rek su ko defee ni moolkat bi mool mool bi ki nga xam ne day napp jët di sanne mbaalam jën yi di ci dugg ba tey saytaan mi ngi koy defee noonu léeg nga gis ku war otom dégg nga bu gën a rafet dem ca baal ba léeg nga gis ku dox ay tànkam amul oto dem ca tànk yam doxee ba ba muy yegg ba ba muy ñëw tànk seytaane la kii oto bi nga xam ne moom la waroon ba muy dem ba ba muy ñëw essence ba ci yàq yëpp kooku seytaane la. waaye wa kun lii min xabaa ilii mun a jiyan yow sunu borom nag ma musal ci fiir gi fiir ba jàpp nga xam ne saa bu fiiree dana jàpp seytaane moom jàpp bis bu ne li muy xam nu mu toll. waaye wa min masaa idii mu naqeen nag ma setal ci ak rëbb maanaam rëbb gi may rëbb nit ñi di leen jàpp di leen sànq nag ma ci musal waaye wa min xawaa ilii mu baxe mu baxe daan yàlla nag ma sëril ak réeram ak cànkoom daal na ko allahumma innahu waswasa fil qalbi maa laa yutiqu lisaan maanaam seytaane ci boppam yow yàlla day jaxal jaxal xolub doomu aadama bi loo xam ne làmmiñu ci boppam sax bu ko bëggoon a tudd du ko mën a tudd. léegi-léegi saytaane jàpp nit ki ci xolam ba nga xam ne làmmiñam su fekkoon mën na ko siiwal na saytaane jàpp na sama xol sax dana ko dana def waaye loolu làmmiñ moo ko doon man léeg-léeg nga gis ko xam ne làmmiñ yi day mel lu mëntu wax rek lu baax saytaane dafa tëj làmmiñ yi maanaam làmmiñ yi at nut wax wax ju baax ndax saytaane moo ci nekk waaye itam wala tastatihu nafsu nasro maanaam bakkan bi du ko mën a siiwal léegi-léegi seytaane jàpp xolub nit ki nekk ci di daw ci dara tam bakkan bi su ko mënoon siiwal siiwal ko mooy tax nag bakkan bi du mën a sellal jëm ci wàllu yàlla du mën a sellal tedd ngeeg yàlla yëkkati koog yàlla loolu nag mu ne yow suñu borom fa asil yaa sayidi maa sutura wam hu maa suyra maanaam lépp lu nëbbu ci sama biir xol wala ci ay neen muy wax lu doonu dëgg yow suñu borom na nga ko dindi dañal ko ci man ba noppi setal ko ba mu set waaye nag da wax nan la koy seetalee bi waa bi min saay min saxaa ibi xasamatika xam nga loolu waxin la maanaam waa mi wutukee ci niiru màggaayu yàlla màggaayu yàlla maanaam waa mi woo xam ne ndox lay nekk moom la koy yàlla di seetalee xol bi waaye wa tuufaanin min bihaari nusratika xam nga tuufaan mooy lépp loo xam ne dafa labale rek mooy ndox ma xam ne dafa labale adduna sépp ba foo dem ndox nga fay fek mu ne nag li yàlla da raxasee xol bi mooy labale labal goo xam ne day bàyyi ko ci géejug ndimbalug yàlla maanaam ndimbalug yàlla daal ci la yàlla di labal ci xol bi mooy setal ko ba mu set wicc waaye moo waxaat beneen wax lu waslul fa sayfa ibhaadika maanaam cër bi nekk ci xol bi te seytaane def ko ci na nga jël sa jaasira bojj ci kawam rek sëril ma ko ni nit kii di jëlee jaas itam di dagg matt wala muy dagg matt gu tooy ni mu koy sëree ak na muy daggatee dee ca nam ko bëggee na yàlla jël maanaam lu ñuy tuddee jaas ba noppi boccil ko ko mooy jaasitug sërilam waaye nii nit di jëlee ak fetam di ko sànni dara mu sëri ko mu ne yàlla damaa bëgg nag war suqu bi sihaami iqsaika maanaam jëmmi seytaane ci boppam nga xam ne moom day jax jaxal xoloo doomu aadama damaa bëgg nga sànni ko fett ak sëg sëril maanaam daal loolu mooy nam ma ko sëril rek moo tax ma ne fett ak sëg sëril waaye mu ne dama bëgg wax rek wu bi naari intiqaamika xam nga safara ci boppam boo jëlee ay ngàjj boo ko taalee dootoo ko gisati mooy lépp lu lay sonna rek boo ko lakkee dootoo ko gisati mu ne ne damaa bëgg nang ko xotti ci safara ak sa mbugal moo yàlla na ko mbugal rek mu dee benn yoon mu génn ci xolam ci saasa kon lii yëpp day wan ne saytaane ci boppam xolub doomu aadama bi ci la soxla ci lay nekk léegi nag muy ñaan yàlla ni ko yàlla di fóotalee xolam bam set wicc seril ko ko comme ni nit di jëlee jaas itam di sëril lim bëgg sëril wala muy jël fettam sànni wala lu mel noonu wala mu xotti lam bëgg a xotti lu mel noonu yooyu yëpp mu koy misaal ci loolu. moo tax mu ne allahuma yow sunu borom laa tajal yàlla bul def sadri sama dënn maraaxan muy aji tëf tëfi li saytaane ngir saytaane. wala tajal yàlla bul def xal bi sama xol majaalal muy aji wëndeelu loxoo jëm ci saytaane. sama xalaat yëpp mu yóbbu ko ci seytaane bul ma ko def de bu ko def sama xol mukk wala taj al nii yàlla bul ma def mi ma ni ma bokk ci ña nga xam ne istafasoo seytaane moo leen woye falal bi sawti ci kàddoom ba ñuy mooy yàlla ci seen kàddoo woykat yëpp dugg nañ rawatina moo xam jigéen ak ñëpp nag wa aj la ba te muy bijji aliin ci ñoom bi xëy lii ci fasam wa rëj lii ak tànkam léeg nga gis ku war otom bu baax otom bu seer wala kuy dox ay tànkam lépp war waaye seytaane ci lañ yéeg ndax fañ jëm mbiram seytaane la fiir la goo xam ne seytaane moo ko sànni rek woo leen ñoom ñëpp ñu dem fa wakun yàlla na nga nekkal lii ñeel ma yow yàlla mun na jiyan doon ku may muccal min haba ili ci mbaalam wa mu naqayan waaye doon ku ñu setal min masa idi ci rëbbam wa mu baxinan doon ku ñu sëral min xawaa ili li nga xam ne moo di ak sànkom allahuma yow suñu borom ndax innahu naka moom seytaane kat waswasa aji jax-jaxal la fil xal bi ci doomu aadama ci biir xolub doomu bi maa jax-jaxal goo xam ne laa yutiiqu du attan mu ko asik lisaanu làmmañ sikru ak tuddam léeg-léeg saytaane jàpp xolu nit ki doomu aadama bu ko mënoon a wax wax ko waaye nag dadu ko dadu ko mën a wax attunu di ko wax na saytaane kat moo téye sama xol moom day def ne rek leneen la. wala tastatiyon te du man a su bakkan bi nasruhu siwal ko ma siwal goo xamee nasaha bakkan bi ci boppam dana ci sellalee xan walis ko xollu xesatika maanaam kaweeg li nga xamee ne moo di sax tedd nga wa su muy maj ka ak yëkkatiku sax tedd nga maanaam bakkan xam nga dëgg su fekkee mucc maanaam xol bi mucc na ci gàtt gàtt yi xëyti siyaati ni yëpp bakkan bi day mën a sellal yàlla day mën a tàggatu ndax bakkan boo xam ne lay doon yàlla day fekk mu taskiya ko ba mu set wicc te boobu du xam lu dul yàlla lu dul màggal yàlla di yëkkati yàlla di ko sellal mboolem ci xeeti manki di yëpp da koy dàqal suñu borom lépp lu jomb rek da koy dàqal suñu borom mu ne ko yow suñu borom fa asil yàlla na nga dañal yaa saydi yow sama sang maa sutura lépp lu nëbbu ci biir xol ba ba waral saytaane di ko jax-jaxal wam hu yàlla na nga far maa suwira lépp loo la te nekk ci biir xol ba waaye li ko yàlla di mooy lan mu ne bi waa bi leen ci waame woo xam ne min saxaa ibi asamatika mu ngi tukkee koo ci niiruk sag màggaay wa toofaani ak labaluk ndox moo xamee ne min bihaari nusratika mi ngi bàyyi ko ci géejug sa ndimbal dégg nga ndax yàlla gis nga loolu la dimbale woon yónente yàlla Moussa ba labal noonam bii di Firawna kon loolu mën nga koo tuddee rek mooy maxnaa bi toofaane min bihaari nusratika ndox moo xam ne dafa ñëw rek labal ay noonam waaye ba tey waslul yàlla na nga bocc alay ci kawam sayfa ibhaadika li nga xam ne mooy jaasu sag sëril maanaam seytaane su fekkoon ne jaasi gooy sërilee maanaam sëb nit ba mucc seytaane am na maanaam jaasi joog na nga ko jërek bocc ko seytaane mu sëri ma mu sëri sama xol waaye war suxu yàlla na nga ko sànni ba tey bi si xaami ixsaika ci fett ak li nga xam ne moo di sëg sëril fett xam nga li muy jëriñ mooy ar nit ki ba li li bëggoon a dëdmal ñëw ci yoon ngay bëgg war boo ko sànnee mucc ci moom wala mu daw kon mu ne na ko sànni fet sëg sëril wax rixu yàlla na nga ko xottee binaari intiqaame ka ci safaraw li xam ne moo di sëg mbugal safara lépp loo bëgg a xotti fexeel ba dugal ko ci biir safara mooy mbugal nga ko dootoo ko gisati kon loolu rek lay lay tegtale. wàccal te yàlla na nga def xalaasi may aji mucc minoo ci saytaane saa idan waaye nag muy dollee ko moom saytaane fu mu toll fii hus nii ci njàqarem ma wa moo ki dan mbir moom muy aji feddali ci waxtu wu ne li asa fii li nga xam ne moo di ak naqaram mu ne waaye nag lim ko tëjee gis nga ñaan gi mooy wàccal xalaasi minhu ma mucc saytaane faw waaye ba mucc saytaane saytaane ku ne xam ne ne la fiiree ba sonn jàpp la day am naqar ku mën a fiir jàppul la rek day am naqar moo tax naqar li mooy saa idan fii husni wa muwakidan li asfi ñaar lay ànd ak mooy naqar fu mu toll di jàmbat ci xolam waaye fu mu toll di naqar di métti al asaf mooy koo xam ne njàqare mu rëy moo ko dal ndax fiir na ba ba ba sonn jàpput xam nga tey mool yi rek su fekkoon saa bu ñu demee ci géej gi jàpp jën kooku dañuy am maanaam asaf dañuy am naqar lu leen métti ndax ku sañoon maanaam boo demee ci biir géej gi boo nappee jën am jën kon su fekkoon ne saa bu ñu demee duñ fekk jën dañuy jàq kon seytaane bu la fiiree ba sonn jàppul la day tëqoog njàqare fu mu tolloon njàqare moom da koy jural naqar kooku moo ki dan mooy njàqare mi maanaam la koy gunge mooy naqar wax ko ci moom ba tey kon may aji mucc minu ci seytaane saa idan moom seytaane muy aji dooleeku fii hus ci li nga xam ne wa mu wokki di aji feddaliku ci waxtu la li as fii aw naqaram comme fiir ma ba sonn jàppul ma yàlla def ko kon lépp day junj rek aaya ji alquran wa ajlib fil amwaali wa fil amwaali wa awlaadi waxeethum wa maa ya'iduhum saytaanu ilaa quruuran waaye nag inna yàlla na yàlla boole ci inna ibaadi yi muy yaagoogu yàlla muy muy nga xam ne moo ko ci dal yàlla na ci yàlla boole. bi jaay si dul jo sallallahu alayhi wasallam kon mu mel ni kon mën nañoo taxawlu foofu incha allah ba dellusiwaat